Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV activez la cloche de notification. salaamaaleykum mbokku internet yi ñuy suivre si Equivox TV tey nag dañoo ñëw euh, pikin seet si fii euh, koo xam ne munoo wax làmb te euh, tudduloo ko muy sunu papa <coughs> Basirou Babou. donc euh, nekk président wu kii <laughs> manager la yàlla dogal na nag li muy wax bëriwul dëgg la waaye li mu xam ci làmb kaar kaar kaar macha allah bëri na lool parce que bëriwul lu ñu fiy nas di ko nocci ci làmb te moom du ci dugal loxoom wala mu mu mu ciy wax di ci dox kon nag tey bu ñëwee pikin seet si ko jàpp nañ ne war nañ fi mën a ñëw seet si ko ñu bëgg a waxtaan tuuti si euh, actualité làmb ak làmb ji par exemple euh, li ñu lay njëkk a posé mooy. làmb ji fi mu toll nii ak corona bi ak fi ñu jëlee daaw diggante euh, euh, saison bi ñu jógee daaw ak corona bi ren bu nga xool li pandémie bi def yàq yàq beeg ya ban jàngat nga nga nga si def père. Euh, ah, maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di rafetlu déplacement bi bu baax a baax li nga laaj. daanaka yaa ma ko gën a xam parce que corona bi li mu yàq ci ci réew mi xaj na làmb daf ci làmb dafa nekk secteur boo xam ne dafa fés bu yëpp yàqu woon moom mooy gën a feeñ yàqu-yàqu mooy gën a feeñ ndax moom dafa léppam léppam léppam média la léppam dafa fés euh, saison bi ni mu demee naqari na mbër naqari na képp ku yëngatu ci làmb mais nag sunu borom bu dogalee ni lii lay def dañuy ñaan yàlla rek mu jële bu dee lu nu neexul dañuy ñaan yàlla mu jële ko fa rek yàlla na ko yàlla jële fii nag andil ñu leneen lu ko dàq waaw loo euh, sama benn góor daana wax ni boo gisee lu naqari nee na séntu lu neex a ngi ci topp boo gisee lu neex nee na lu naqaree ci topp àdduna noonu lay doxee ba mu ba àdduna sosoo ba léegi euh, loolu leer na nga gis ne kon euh, saison bi daaw teel na arrêté saison ren aussi ubbeegul woon ndax ndax ndax euh, euh, feebar bi mais teewul promoteurs yi ñu ngi taxawal ay combat combat yu bëri taxaw père euh, am est-ce que bokk nga si ñuy wax ni risque la fi ñu toll nii promoteur di di jël avance di ko jox mbër. benn même bu fekkoon ni du du du feebar bi àggaguñ ci aar bu làmb war a ubbi. làmb da daan ubbi octobre ñaare bala ñu daan tëgg euh, ay novembre décembre lañ daan tëgg te euh, làmb lépp risque la ci mbër mi risque la amateur bi dem sax di seetaani <laughs> risque la ci moom làmb léppam risque la euh, ku ci bañ risque sooy ba nga nga teel ci génn promoteur bi dugal xaalisam di di xaar risque la mbër mi jël avance xamul làmb kañ lay ubbi risque la kon euh, lépp lépp làmb risque la nañu ñaan yàlla lépp lu luñ ciy séentu ci loo xam ne si lu baax la yàlla teelal nu ko andi nu dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin coow li xaw a bëri père ci combat yi combat yu taxaw waaye seeni i boroom ñi war a bëri euh, di laaj avance boobu léegi ndax promoteurs yi ñoo ñoom ñoo yorul xaalis xaalis moo amul wala dañoo bëggul a jël risque lan moo tax combat yu bëri ñu ngi koy coow taxaw na te mbër mënuñoo jot avance boobu boobu léegi. yan combat maanaam da nga may citer. da ngay par exemple combat bu mel ni euh, Eumeu Sène ak Bombardier ba léegi euh, ku mel ni bu ma jëndee nañ mu ngi xaar avance am duggul ba tey. combat bal kii euh, Sa ak ak ak ak Garga Mbossé yàlla dogal na sax yàlla ñu yor ñoom ñaar yaay seen manager ba léegi biñ ko annoncé yàgg na waaye avance duggagul voilà donc yooyu combat Balla Gaye jotagul xaalis même si euh, nee nañ joxe nañu seeni parole ak yooyu lan moo waral yéexaay bi promoteurs yi ñoo amul xaalis wala dañoo bëggul a jël risque pourquoi. waaw euh, daanaka yeneen combat bu paasee bu sàccee sa garga mboose yeneen yi comme jaarul ci nun menacé yi pour ma wax ci day xaw a day xaw a day xaw a jafe lool lool lool lool pas combat wu Balla Gaye Balla Assis moo doon wax ak Gaston ba léegi ñoom ñaar ñooy wax fu ñu toll xamaguñu ko ñu ngi leen di déglu bu ñu paree ñoom danañ nu woo mais yeneen combat ci de comme menacé àndu ca soxlawul ñu nun nun nun nu ciy wax dara dara parce que loo ci wax it xamoo ci dara parce que wax ci loo xamul euh, erreur la te mën ngaa wax loo xam ne si ëllëg da lay andi lii sa Thiès euh, Garga Mbossé waxtaanoon nañu ak promoteur bi ñoo ngi toog di ko xaar ah waxaguñu ni du ko tëgg comme wax na ni dana ko tëgg te saison ubbeegul nun amaguñu luñ ci yàkkamti ñu ngi toog di xaar aar bu ko bu ñëwee alhamdulilah moo ñu gënal bu ñëwul it moom mu seeti leneen ñun ñu seeti leneen mais bu ñëwee comme waxoon nañoo mu waxi gor ba pare bu ñëwee moo ñu gënal waaw. ndax am am nga diir bu ngeen ko jox parce tamit bu ngi bëgg yàgg est-ce que am na diir bu ngeen ko jox délai ne délai bi tel bu buñ fa yeggee te te ñëwul ñun libre nañu pour dem seeti beneen bët loolu am na amul. ñun budul kàddu libéroon nañu ca bis ba mais délai amul làmb mooy jox làmb ji mooy joxe délai dana àgg foofu délai làmb ji moo koy jox dele ni ko lii boo ko deful keneen dana ko def wala boo ko deful nii nii la nii wala nii bu boobaa làmb mooy joxe dele mais nun kàddu la ñu am joxe woon nañu sunu kàddu noo ngi toog di xaar li ci des nag làmb moo koy àggale bu ñu àggee ca foo xam ne si làmb mooy koy wax ni ko lii kat ak lii ak lii moo moo moo war a am moo bu te bu boobaa loolu mooy am. bu nu ñëwaatee si Balla Gaye ku ne xam na ne yow yaa koy signeel muy Balla Gaye muy muy Sa Thiès yaa leen di signeel waaye ni nga waxee dafa mel ni kon négociation yi accès gul si manager si wàllu agent yi est ce que loolu du posé ba léegi problème mu manager rek agent yi si wàllu négociation combat yi du ko posé ba léegi wala. non non amul problème bu mu ci bu mu ciy posé parce que euh, Assis bu waxee Gaston wala mu wax ak keneen bu teggee danaa ci xam dara danaa xam ni wax naag Gaston wax naag lii Balla Gaye ak Sa Thiès seen baay mooy seen mooy seen manager xaj na wéram mayu ko mu mu mu mu dem man ndaw laa ci dama leen dama ko dama leen di jàppale nii ndaw laa ci du du du maa leen yor mais nag am naa ca dogal bu ñu àggee ci combat damay xam ne lii maa ma man maay dem àggale war wax papaam ni ko lii la combat bi demee nii la combat bi demee mais dañu ma dénk mais seen papa mooy seen menacé principal mooy menacé principal bi nga xam ne moom moo kii mais nag lii ñuy dox nii lépp luñ ciy dox nii moom man maa ko koy wax ni ko lii la ak lii parce que kattanam mayu ko ko xam-xam bi àggu fa te eh, ñoom euh, xelu mbër mi da cay euh, mag la ba noppi xelu mbër mi day des ca biir am na lu bari mënu ko caa xam lu mu ca xamul bu boobaa damay ñëw ni ko lii nii lañ ko war a defee nii lañ ko war a defee nii lañ ko war a defee mais benn la mu mu dem engagé ji ko wala man ma dem engagé ji ko kër gi ñu euh, ñaari doom la ñun ñaari baay la ñu ñoo leen bokk kenn kenn xajul ci diggante bi kii rax ci nun mooy assis ak euh, ak baay maa ngi leen di euh, nuyu te di leen di sant ndax kuy dimbali sa njaboot mi ngi lay dimbali kon gisuma benn gravité bu ci am ci ci enseigne yi parce que bu fekkee Ansa doxal na la mu war a doxal dimbal la ndimbal la tey boo doon xool ku mel ne Père Ba day dimbali ku mel ne cuun bi yore pa tafatin day day dimbali loolu Ansa mënul yàqal malaase dara mënul yàqal mbër mi dara kenn ku ne dafay am rôle booy dox Ansa bu bëggee romb ab parole euh, place mën na mën na di yàqu-yàqu wala mu indi ay réeroo mais bu fekkee dafa yem ci pala place ensan rek day dimbalee kuy dimbalee nag nit nit nit ñi dañ koy soxla te ku mel ne tey per Ba ak ku mel ne El Hadj Thioune moomu tey ñooñu nun dañ leen a soxla ndax dañuy dimbali booy yi ci biir ak ci biti kon ñooñu amul dara lu ñuy yàq ci làmb ji amul dara luñ fi def loo xam si lu yàq lay doon boo nee ñooñu du ñu yàq kon dafay tekki ni am na ñeneen ñu yàq de ñuy liggéey liggéey boo xam ne kenn kenn gërëmu ko de wala. waa xam nga àdduna ñëpp du ñu mën di bokk di defar ñii dañuy defar mu jaar yoon ñii defar du jaar yoon kon xaj na am na ñeneen ñoo xam ne si xaj na la ñuy def eh, jaarul yoon ñoom danañu jàpp ni yoon la mais jaarul yoon mais. mënuñoo yàqal menacé yi dara de menacé yi ñoom fii ñu toll parce que fan yële gis naa benn waaye mu nekk ci benn télé mu ni fédération baaxul parce que bu amee menacé dootu am xam nga kooku ku koy wax dafa fekkewul parce que menacé jotiwul ak fédération dara menacé jotiwul ak CNC dara menacé yoonu boppam la jëm CNC ñaata li fi ko li fi fekk menacé ëpp na fukki fukki fukki CNC lu mat ñetti fédération fekk na ko fi jotewuñu dara bu ñuy dem ñoom dañuy dem seen yoon nun bureau bi 1960 lañ ko sos ba léegi ku ñëw it da nga ko fiy ku yor ba doyal da ngay yor ba doyal nga bàyyi keneen keneen jël mais jote jotewuñu dara parce que daal bu ku ne doxalee ci rôle bi mu dox bi mu bi mu yor coow du am bu ku ne buñ la laajee loo xamul nga ni lii xaw ma ko coow jaxasoo du am mais bu fekkee da nga yem ci li nga am xam rek yaakaar naa jaxasoo du am te nag li ëpp nag li ci li yàq làmb ji mooy ñi ngeen di dékk micro te xamuñu ci dara parce que nit bu dee wax ci lu mu xamul toujours ma nga yàq yàqal bi nag bari na trop trop trop trop da dem ba yow mais am tuuti loo ci xam xaj na làmb kenn mënul xam lépp mais yow mi xam am tuuti loo ci xam dalay dalay dalay da da ngay dem ba ci làmb parce que affaire bi nii boo koy xool doo xam fu muy tege doo xam lan la ku jóg rek wax ku jóg wax ku jóg ni làmb ji lii ku jóg ni làmb ji doo ko teg ci xam-xam booy wax te tegu ko ci xam-xam li ngay wax du du du du baax te de yàq rek lay andi yàlla nañ yàlla musal ci yàq te ngeen di gën di seet ñi nga xam ne ñoo xam tuuti ngeen di leen laaj parce que mag bu ku dem mu dem ku demul mu dem kon nag balaa dem nga jël ci xam-xamam lu baree baree bari xaj na doo mën a jël lépp nga jël ci xam-xamam lu baree bari dafay dafay baax lool parce que loo loo nekkul euh, ndongo bi pour nga nekk sëriñ bi dana dana doy waar lool lool lool boo ko defee rek euh, lu wolof yi dañuy wax ku jàngul tari ñu baal ma ci kàddu gi fenn lay doon te jàngul tari bi moo bari léegi jërëjëf wax ji leer na mais bu ñu dese desee tuuti si Balla gay balaa ñuy jàll mooy euh, ku wax Balla gay wax ko mbaam ak ak <laughs> Gris Bordeaux coow li ci euh, am per ak euh, juddu si diggante Gris Bordeaux ak kii di promoteur bi Gaston Mbengue boobu d'abord jàngat ban jàngat nga ci def coow li. xanaa di ko ñaawlu nun xamuñu ci dara xam na dég-dég bi ngeen ci am lan ci am amuñu ci xam-xam mais rafetul rafetul ci deru Gris rafetul ci deru Gaston. rafetul ci deru làmb parce que làmb fi mu toll dafa soxla ay nit ñuy defar soxlawul ay yàq ay yàq-yàq ak ay wax yoo xam ne si dafay da day ñaaw ak danaa la delloog du ma la delloo yooyu mënoon na bu ñu waxtaanee ñoom ñaar waroon na mën a bañ a fii bu ñu man daal rafetlu ma ko bariwuma ci xam-xam nag parce que ni ngeen ci déggee nii noonu rek laa koy déggee comme da ngay dégg rek li nga dégg ngay mën a ci ngay mën a siise mënoo siise leneen la ci biir la ñu def ci seen biir Gaston ak Gris la loola mënuñu ko xam noonu kon comme mënuñoo xam nag li nga xam ne moom la ñu dégg ci kaw loolu liñ ci ñaawlu daal mooy ci xuloo bi ak coow li ci loo xam ne si ñi ngi toll ci di ko defaraan ñu ngi rafetlu euh, mandute bi li nga xamul nga bañ ci wax waaye kii di Balla Gaye war nga xam ay mbiram ne yaa ko yor ni nga ko waxee moom la papa moo leen ko dénk donc euh, moom. bu combat ak Gris kenn ñaanu ko yàlla na yàlla na defaru waaye bu yàlla dogalee amatul ban ban yoon la bala Gaye war a jël. Ah, ah yàqu-yàqu bu amee du yem ci benn. mën na nekk ñaari yàqu-yàqu mën na nekk ñetti yàqu-yàqu. te te bu boobaa non am du neex a wax. Ah, yàqu-yàqu mën na bari bu fekkee yàqu-yàqu am na ci bii. yàlla bu am. bu fekkee yàqu-yàqu am na ci bii mën na am beneen yeneen yàqu-yàqu yoo xam ne si Balla mën na cee bëri ji ak ñeneen. ñooñe it mën nañu bëri ji feneen parce que làmb euh, nañ ñaan yàlla bu yàqu-yàqu amee bu yàqu-yàqu amee solution de am. solution